di ko tuubal tuub goo xam ne ñi ngi koy tibbe ci suñu xol ci mboolem suñuy bàkkaar yi nga xam ne yëg nañ ko mboolem suñu bàkkaar yi nga xam ne yëguñ ko delluwaat di ko ñaan mu teggal ñu njàqare li nga xam ne daj na àdduna di feebaru bon bi nga xam ne mooy coronavirus <laughs> yal nañu ko yàlla saafaraal daa mel ne jaaxle moom naka jekk daa jotoon waaye gën naa jot ndax yu bari yuñ doon dégg ci réew ya ñu ngi koy tàmbalee gis ci suñum réew te daa mel ni taxawaay bi nga xam ne moom la ci réew yooyu am suñum réew amu ko ci kon boobaa jaaxle jot na sëkk ñun léeg-léeg bu am nattu ñëwee ci ñun wala balaa dafa am yu muy indaale yu bari yoo xam ne sax da dul tëral nit ki ba mu dem hôpital waaye li muy def ci pas-pasam di ko def ci ngëm-ngëmam moo gën a foor sax li feebar bi di def ci aw yaramam loolu moo tax dañuy faral di wax ne ñu njëkk ñi nga xam ne dañoo weddi woon yàlla te daan ko bokkaale buñ masaana ne ci jaaxle dañuy dellusi ci yàlla wéetal ko bu affaire bi neexee ñu delluwaat ci ak bokkaale waaye mu mel ni booy xool ñun ci suñu doxalin buñ amee xéewal jiiñ ko suñu bopp ak suñu njàmbaar waaye buñ nekkee ci ay xat-xat ak ay jafe-jafe delloowaat ko ci ak bokkaale ak ay pexe nga xam ne kon boo koy xool ba mu yàgg danga naan daal kon li ñu dal du jàmm ànd ak loolu yëpp feebar bi nga xam ne dafa daj kapp àdduna ku ne xam ne lu yéeme yéeme la luñ ci mën a jàng lu bari ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu science buñ la ko jàngataloon dañ ciy indi seen jàngatu bopp muy njàngat mu xóot moo xam ne danga naan déedéet kay ci wàllu feebar yeeg ci wàllu microbe yi ni ñuy dajaloog ni ñuy tasaaroog ni muy indile fitna doomu aadama tàmbalee ko ca malaya ba ci nit ñi ak niñ koy wutale ay garab yi nga xam ne moo ci am lépp te lépp di dellu ci wàllu biologie ak yi nga xam ne moo ci aju buñ la ko jàppaloon ci wàllu science ba tojal la ko rek mu doy sëkk ab xam-xam boo dellusee ci wàllu médecine te ñoom ñaar ñooñu ñu xaw a bokk ndey ak baay ñoom itam bu ñu lay wax doomu aadama ni muy sosoo ak ni mu yokkoo ni tawat di dugge ci moom rawatina bu ñu demee ba tudde ko viris nga xam ne doonut lu ay bët mën a xool gis ko waaye dañ lay wax ne la day mel ne benn fepp suuf ñu xar ko lu ma téeméeri yoon xam nga kon daanaka gisatoo dara nga xam ne appareil bi koy xool da koy jàpp di ko ful di ko fulaat di ko ful di ko fulaat ba door koo mën a gis loolu nekkaat lu yéeme loo xam ne day dooy sëkk waaye jullit bi itam bu ñëwee ci boroomam subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo waxoon ne ko soldaari asamaan ak suuf maa leen moom nga xam ne feebar ci soldaari borom bi la bokk nga xam ne ku ko yeb ku ne rek danga xamut waaye bu la yebaloon weewu damm dong ba xaw a laal fi déewut ngay bëgga a sa sa ko bu la dégg jamee rek boo muy tuut ñëpp yëg ko kon feebar dangay xam ne yëfam la balaa la nattu la yoo xamante ne moo koy wàccee ci kaw jullit bi saa su ko neexee yàlla nañ ci musal buñ dellusee di ko xool nag dañuy delluwaat ci moom suñu borom subhaanahu wa ak nattoom yooyu ndax dafa waxoon ne doomu aadama bi na xool li muy lekk bëggee xam doomu aadama bi na xool montagne yi bu bëggee xool may doomu aadama yi nañ xool gëléem ni ma ko bindee buñ bëggee xam may kan doomu aadama yi nañu xool nit buñ bëggee xam may kan sanurihim ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim xatta yatabayyana na annahu xaq nga xam ne kon manees na ko cee yeex a boole waaye yàgg-yàgg dees ko ciy boole rek pour mbir yi mën a sotti buñ ko ci boolewut dara du sotti ndax wa ida maritu fa huwa yasfiini borom bi subhaanahu wa moo doon wax ca làmmiñu ibrahim yàlla mooy ki nga xam ne moo ma bind yàlla mooy ki nga xam ne moom ma jox ma lekk te moonte moom yàlla ñëw dugg ci waañ wi togg yàq euh, jox la nga lekk waaye danga naan yàlla moo ma leel te yaa tibbal sa bopp ci kuddu gi seex wala yaa dank yaa dem marché ndugg gi yaa togg yaa def effort yi ba dajale ko ñëw teg lekk ko waaye danga naan huwa yut'imuni moo leel wa nga wax ne moo ma màndal te moo ne bi nga maree yaa dem tàng ca ndaa la naan waaye noonu ngay waxe wa ida maritu moo may feebar wala su ma feebaree fa yas fii nii moo may saafara kon moo may saafara ji li muy tegtale mooy yut imu nii ji da koo gëm waaye bi añ jotee da ngaa tibb di seex ba suur ne ko alhamdulillah sant naa yàlla bi nga maree dangaa jël sa butéel naan wala pot ba wala nga xelli sa weer waaye nga delluwaat ne ko yàlla sant naa la bi nga feebaree itam noonu ngay fajoo ji ba wér gëm ni nag faj mi yow saaf maanaam sabab si nga yor waaye wéral gi moom ci loxoom la nekk boo wéree nga sant ko loolu moo tax ki gëm yàlla dëgg-dëgg buñ ko digalee ne ko lii yu muy bàyyi xel la yu nit ki di bàyyi xel la ngir mucc ci tawat day góor góorlu ci loolu day góorgóorlu ci loolu day góorgóorlu ci lépp loo xam ne ak fegu la ngir mucc ci lépp loo xamante ne nii ak faju la hmm. day góor góorlu ci lépp loo xam ne ak feju ak fegu la ngir mu musal ko ci lépp loo xam ne ak faju la léeg-léeg nag mbir yi dafa am yu baree bari yu ko war a doxal yoo xam ne doo xam da nga ciy wax wala danga koy bàyyi ndax bu ñu xoolee bisu àjjuma jiñ génn nga xam ne dañuy wax ne bu ñu julli jumaa waaye biñ ko waxee ba noppi sànni ko dëgg dul xam dogal bi fan la tàmbulee ak dogal bi fan la yem ndax bari na ay réew ci dëkk bi wala ay dëkk ci réew mi yoo xamante ne julli nañ nga ñëw ci capital bi ñu tere ko fi ba am ñu fi julli sax ñu leen di jàpp ak ya nga xam ne moo ci aju boroom xam-xam yaa ngi ciy wax ba démb yal na lépp doon jàmm waaye yal na lépp jig réew mi beneen bi ci des nag te ma di ci dellusiwaat ndax bàyyi ko day xaw a doy waar léeg képp ku nekk ab jullit da ngay war di poser question ñun ñooy ñan maanaam am nañ aw déggin ci diine ji woo xam ne déggin wu jara defar la mooy diine joo xam ne faaw mu ànd ak njabar diine joo xam ne faaw mu ànd ak ay xarxa wóolu yàlla goo xam ne faaw mu ànd ak lu leerut nga xam ne dañuy jàpp ne ak njullit ci boppam day mujj yàgg mooy mel ne mbir mi kumpa la wala mbir mi baatin la wala mbir mi lu leerut la nga xam ne baat yi bu ñu la ko firilut ci ngay gën a yéemoo te ñun doomu aadama dañoo mel ne luñ xamut dañoo neex maanaam lu leerut lu xas ba leer ci ñun rek neexatuñu waaye luñ def ay langage ak ay kot ñu di ko wëri dañuy jaral lu ne looloo tax saa su nekk ñu fent phénomène bu bees xam naa bu fekkoonte ne coronavirus moom ci Sénégal dong la wàcc dañuy wax ne sax xanaa ñun yàlla dañoo mere wala ana suñ yonent yu bees yi ndax bu yàggul lañ fi dégg jigéen ju taxaw ne ab yonent la ñuy reesal loolu jàllagut keneen ku góor dagge ca làng ga ne ab yonent la ñuy reesal loolu jàllagut keneen daggee ca làng ga ne moom day xam xaybu gis naa yonent bi ci gént gis naa nàngam gis naa nàngam yépp ñu bàyyi mu jàll euh, duñ ko jàngat ci aspect boobu waaye buñ ko doon jàngat ci côté boobu rek dañuy xam ne yàlla dañoo yërëm waaye tooñ nañ ko tooñ yoo xam ne la mu waxoon ne su ma leen doon jàppe su ma leen doon jàppee li ngeen may tooñ kenn dootu dox ci kaw suuf borom bi nee na bu doon ku ma tooñ ma dagg boppam bu doon ku ma tooñ ma dagg boppam kenn du daagu ci kaw suuf wallahi kenn du daagu ci kaw suuf nee na kon waaw bu fekkoonte ne ku ku jàdd rek ma mbéj <laughs> ku rek ma mbéj nee na kon kenn du dox ci kaw suuf walaw yuaqidu llahu nnaasa bi ma kasabu maa taraka ala waaye nag taxul ma bàyyi de mu ne walakin yuaqiruhum ilaa ajalin musamma dama leen di yeexe rek ba ba jot bu ràndiwu ba jotee <laughs> dangeen xam ne borom bi ku xam li xew la waaw fa inna allaha kaana bi ibaadihi basiira waaw da ngeen xam ne ku xam li xew la mbokk yi bokkaale ci mooy yàlla yi gën a màgg la bokk moo tax nañ ko moytandiku bokkaale ci bàkkaar yi gën a rëy la bokk ci bàkkaar yi gën a rëy la bokk mooy tooñ gi nga xam ne mooy tooñ gi gën a rëy nga xam ne weesu na sax bàkkaar waaye ak tooñ la inna shirka la zulmun azim àgg na ci nekk tooñ gu rëy rëy rëy rëy borom bi subhaanahu wa taala lim moom dañ ko koy bàyyee wa huwa alladi razaqa wa huwa alladi yuxyi wa huwa alladi yumiit mooy ki nga xam ne wërsëg yi ci loxoom la nekk mooy ki nga xam ne dund ci loxoom la nekk mooy ki nga xam ne dee ci loxoom la nekk xéewal yu baree bari la jël jox ko doomu aadama ba léeg-léeg mu am liberté amul njàpp ndal ci kaw suuf bay ndaataatal lax ba di ko fàtte lu ne jàpp ne wëñ gi day faj dem ba jàpp ne buum gi day faj dem ba jàpp ne karaw gi xooj ko naan ko day faj dem ba jàpp ne eh, jël nen yi wëndeel ko sa bopp bi saraxe ko day faj dem ba jàpp ne fanaanoo soow mi xëy saraxe ko day faj dem ba jàpp ne rendi xar mi day faj doomu adama nee na yu ñàkk solo yooyu xamante ne xeebu lool la def jël nañ ko doxale ko sama diggante yéen ak kàttan gi nga xam ne moom laa am ci sama jaam ñi bokkaale borom bi nee na képp koo xam ne bokkaale na ma aljanna araam na ci yow sa wàcc wàccuwaay ëllëg mooy sa wara ndax dag maa tooñ innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu alayhi aljanna wa mahwaahu naar wa ma lilzalimina min ansar borom bi nee na ku ma bokkaale ma lakk la bépp bàkkaar boo xamante ne nit ki faatu na ci te tuubu ko borom bi mën na koo jéggal waaye bokkaale moom du ko baale inna allaha laa yaxfiru an yusraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha wa man yusrik billahi fa xad iftara idman azima yàlla nee na képp ku ma bokkaale fenna na fen wu fent na bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy toog rek monte say affaire damaa gént yonent bi ne ma ku ubbi kaamil bi fekk ci euh, maanaam karaw nga xooj ko naan ràbb koo ràbba ràbb ba mu jub loo xam ne sax ñun biñ koy wax ak biñ koy gis ci YouTube bi bi ñu xoolee def na ñeenti weer ci ginnaaw boroom xam-xam yi waxoon ci ba noppi mbokk yu baree bari lu ne ñu wax ko ci am na ku ne ma euh, kaamil boo yàgg am wala livre boo yàgg am di ko liir boo ko ubbee di ko xool boo moytuwul gis ci karaw ndax liy ruuse ci yow day def ci fooy yi ma ne ko ak lu ci man di xew daal man damaa xoolut maanaam nit ki dangay ngay da ngay mujj yéemu daal ndax it li ñuy daj ci waaraate yi ak li nit ñi daj ci jàng seen diine ne dañuy dem ci conférence yi ne dañuy déglu yenn yeete yi waaye ànd ak yooyu yëpp nga gis mag mu ne léegi dem ubbi kaamil toog naan la gis naa ci wëñ gi di xooj di jox nit ñi ñi naan wala ngay woote téléphone dëgg-dëgg damaa xamul ba xam problème bi ci nit ñi ni ñuy jëlee yëf yi la bokk wala ñi leen di jox garab yi fi la bokk waaye problème moom am na problème am na. léeg-léeg boo dégloo ñiy laaj ci diine ñuy laaj-laaj yoo xam ne danga naan jàngalekati diine yi ndax dañoo waxtaanewul loolu ba mu dugg ci bopp nit ñi wala lu xew waaye léeg nga gis it ay mbir di ñu fab bi di ñu tee nelaw waaw di ñu tee nelaw nga xamante ne lu tuuti lay doon dëgg-dëgg borom bi nee na ku koy def ku ne boo ko yëgee boo ko yëgut sosal nga ma sosal nga ma sos wu rëy woo xam ne bu ma la jàppee duma la bokkaale buñ koy wax muy ashirk Euh, dafa am bokkaale goo xam ne nit ki da koy bokkaale ci rubo bi ak suñ borom gi maanaam doon gim doon buur doon yàlla léeg-léeg ñu bokkaale ak moom jël place boobu teg fa kenn wala nit jël fa place boobu teg fa boppam ke ca gënoon a ëppal te gën caa réew mooy na Firawna na dafa demoon ba yëkkati baaraamam teg ko ci dëndam ne ana rabbukumul aala nga xam ne rubo bi gi la jël sol mbubb mi ne maay seen yàlla yemul ci yooyu mu ne waaye maay yàlla ji gën a kawe <laughs> firaw na fuuy na waaw nga xam ne moom dépassé na léegi maay seen sëriñ wala euh, man xam naa li ngeen dékkee ak li ngeen añee firaw na dane maay seen yàlla yéen maa leen bind maa leen moom <laughs> allahu akbar waaye xoolal borom bi ngir bëgg koo toroxal moo tax bëccëg la ko labal bëccëg la ko labal ci géej gi muy lapp-lappi naan tuub naa bàyyi naa yàlla ne ko di nga xam ne maa yow la ba démb dañu lay won ab néewam mu tëdd ne laaj ñépp xam nañ ne kooku du yàlla danañ bokkaale borom bi subxanahu wa taala ci uluhiyaam gi doon gi nga xamante ne moom la doon ku màgg ku rëy kooku nga xamante ne moo bind jaam ñi keneen ku dul moom siqoo ak moom bind googu danañ ko bokkaale ak moom nga xam ne moom lañu war a déggal ci di ko jaamu jaamu gi moom moo ko war a tax a jóg waaye danañu wut ay xërëm doxale ko suñu diggante waaw xërëm nag lu wuute la lu yaatu la bu dee ci jamonoy jaahiliya ca ceddo ga dañ daan samp ay yàlla yoo xam ne yàlla yi tàndarma la jii ñu ne mooy taw jii ñu ne ko amul doom ci ngay ñëw mu may la doom jii ñu ne mooy ji nga xam ne bu marché bi doxut ci moom la ñuy ñëw ñaan ko ngir marché bi dox noonu lañu ñu woon bu ñëwee ci suñu yos ñun ci suñu jamono mën naa bañ a demee noonu waaye léeg-léeg bu feebar bi jotee am na biteel boo xam ne moom nga yaakaar wala am na yenn jàdd jàdd ak yenn yëf yoo xamante ne danga naan ñoom maama ko fi bàyyi woon après léegi yooyu mën naa dox sa diggante sa borom boo moytuwut jaamu gi mooy da ngay dem ba mujj yàgg wut ngërëmul nit dalay lay da lay gënal nga wut ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala gis nga ab sew-sew bu rëy moo nekk foofu léeg-léeg nit bëgg a dàq nit ki dox digganteem ak yàlla ngir di ko woon ba far lépp mu daanu te demut waaye léeg-léeg nit dox jëm ci nit kooku war koo woon borom bi subhaanahu wa taala mu far yem ci kooku ndax léeg moo ko fa yemale maanaam moo lay yemale ci boppam ba doo jàll te boo ñëwee rek dalaa war a joxoñ fa nga jëm maanaam li muy tegtale mooy dalay dalay indi waaye du dox sa diggante ak borom bi subxanahu wa taala du dox sa diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari na nag ñoo xam ne dañoo dox diggante njaboot yi ak yàlla dox di dox diggante njaboot yi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba ñu wootee ba nit ñi ñëw daal ci ñoom lañ yem jàlluñu ci ñoom lañ yem jàlluñu moo tax lii xew ci penc mi lu ne mën nañ koo wax du déranger kenn. waaye am na foo xam ne boo fa laalee rek moom sa jàmm jeex boo moytuwul nga dund dund gu méttee méttee méttee métti lii waral loolu mooy dox gi nga xamante ne yaa ngi ko samp ab xëram teg ko ca kaw ca kanam di ko jege jegeelu di bokkaaleeg moom di ko jaamu te yëgoo ne borom bi subhaanahu wa moom moom loolu ak jaamu yàllaa ko moom qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiina laa sharika la wa bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin loolu li wér borom bi nee na sa suñu julli sa rend gi sa dund gi sa dee gi lépp yàllaa ko moom maanaam julli buñ koy def yàlla la ñuy jullil waaye fi mu ne tuur deret sax bu buñ koy def yàllaa war a tax ñu di ko tuur gis nga fi mu dugal rendi waroo fee rendi ndax ay xarxa fuufa wala ay nangam nangam yooyu yëpp day dugg ci bokkaale googu nga xam ne mooy bokkaale ci uloohiya gi naka noonu noonu la nit ki di bokkaale ci turi borom bi subhaanahu wa taala ak melokaanam yi loolu mooy jàpp ne mbindeef dana am melokaani yi suñ borom yi subhaanahu wa taala nga xam ne booy booy ñaan sax boo moy tuut ci moom ngay ñaan waaw ci moom ngay ñaan léeg nga dégg koo xam ne danaan la bàyyi naa la ak sëñ diw ah te nga ko bàyyi yàlla wala nga dégg koo xamante ne danaan la yàlla na la sëñ diw fay waaw hmm? xam naa yooyu yëpp day bokkut ak yi nga xam ne tàmmoon nañ koo dégg ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak njàngaleem sëñ diw mooma mu mën a doon mu mën a doon kenn ku ne ci ñoom ñi lay bàyyeel daa bàyyee woon boppam boroomam ba noppi joxoñ la ko ne la na nga ko bàyyee sa bopp man sa njaati gelaa waaw sa njaati gelaa ñëwal ñu ànd dem léegi nag euh, booy def tawasul nga def ci barkeem am na boroom xam-xam yu wax ne manees naa tawasul ci barke am ñoo xam ne kenn du tawasul ci kenn ñoo ñaa gën a tenkee yëf ya waaye léeg-léeg am na loo xam ne ku ko jiiñ nit bu soobee sëñ diw danaa def nangam te koo ko doon ko faatu dëgg-dëgg la ngay def nag ak bokkaale la waaw bu soobee yàlla ak sëñ diw sax ak bokkaale la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa waxoon waaje ne ko ndax da ngay wutal yàlla moroom ba mu ko waxee ne ko bu soobee yàlla te soob la yonent bi da ko ne atajaal lillaahi nidda wa huwa xalaxak ndax da ngay wutal yàlla moroom da nga koy wutal ku mu bokkal yëf yi te bim lay bind tàgguwut kenn bim lay rey tàgguwut kenn nga bëgg koo wutal moroom ci dogal yi bëgg koo wutal moroom ci engagement yi bëgg koo wutal moroom ci nàngam waaw léeg-léeg ma wax ko bari na ñoo xam ne fi mu ne coronavirus bi dugg léeg ñu ne dëkk bi dëkk bu tedd la feebar bi du fi dugg nit kii nit ku tedd la feebar bii du ko dal gis nga loolu il faut sëriñ si ak ñu yor seen kàddu ak ñun ñiy yu ndaw yi ñu jéem koo waxtaane nag ñu jéem koo waxtaanee jéem a xool nag xam ne nag maanaam nattu wala lu metti naka jekk dafa yàgg dal nitu yàlla koo xamante ne day dund ci ay xat-xat ba da nga naan kii yàlla da koo fàtte waaw ba da nga naan kii yàlla maanaam tey nit ki feebar tegtalewut ne moom dafa nekkut ku baax dëkk bi am feebar tegtalewut ne dëkk bi ñu bon dañ koo dëkkee wala dëkk bi dafa des ginnaaw wala ak may dafaa nekkut wala kiraamay suñu borom subhaanahu wa taala dafaa nekkut loolu day jaadu kenn ku ne ubbi boppam dajji ko ci seppi ko sànni fële waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam këram dañ doon xëy xiif toog nañ ñetti weer yoo xam ne cin tàkku fa te moom la yàlla yónni moo gënal ñëpp lu tax loolu yow da jàpp ne kon sa ñàkk gi ak mbon a tax yonent yàlla ayuba feebar na bañ koy daw mu tëdd nga xamante ne di seetut kenn alalama ki surgaam ak ñëpp di ko daw te ab yonent la ndax loolu day tegtal ne dafa bon wala déet yonent yàlla yunus aw jën wan na ko mu nekk kaso ci moom ibrahima sànni nañ ko ca teen ba wala ca sawara wa yonent yàlla yuusuf tëj nañ ko ca kaso ba muusa daw na sax ci àll bi di toñ toñaan ak nekk surga di liggéeyaan ci kër yi te moo ne ñoom ñëpp ay yonent lañ ñoo xamante ne dañoo làq ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala waaye teewut bu nattu ñëwee ak lu metti war a dal ci seen kaw day dal ci seen kaw ci lu amul benn werante ndax borom bi subhaanahu wa taala moo toll noonu moo tax bokkaale goog nga xam ne moom la nit ki di bokkaale ci wutal yàlla moroom moom lu bari mm. la bu ko nit ki yëgee ak bu ko yëgut ab jullit dangay wéetal borom bi subxanahu wa taala maanaam ci dogal yi dogal yi da ko ciy wéetal xam ne moo ko dogal keneen ku dul yàlla amut ab dogal da koy wéetal ci xam li xew ëllëg waaye da koy wéetal ci wàkkiirlu ci moom ak di ko jaamu waaye da koy wéetal nag ci bañ ko wutal ndend bañ koo wutal morom xam ne mooy yàlla yëf yi moom la lu ko soob mu def def na lu ne. def na lu ne yàlla rey na koo xam ne tey la judd nekkub liir defagut dara yàlla rey ko ab liir juddu na nàmpagut suñ borom eh, rey yaayam bàyyi fi liir bi mu tëdd di kalaw kalaw yi waaw yaay ji faatu liir bi tëdd di kalaw kalaw yi kooku bu amoon ay sentiment wala mu am yërmande du rey ndey te doom ji door a juddu danaa naa ko fi bàyyi ba mu feral wala ba xale bi dëgër ndax xale bi am lum nàmp waaye li xale bi di nàmp ak nan lañuy yare xale bi koy toppatoo loolu yoonam nekku ci moom li ko ñor mooy yaay ji ab appam mat na day faatu xale bi war naa dund ba am doom moom dana dund ba am doom ak ku ko mën a yar ak loxo yu mën a jaar bu àdduna sépp àndoon seetaan ko du tax mu faatu nit judd na faatu tey doom joojee mu bàyyi woon gis nga dund ba ami sët nu dund na uuf doomam di ko nàmpal di kopp koppal balaa xale baa fer faatu te moo ne pexe mu ne def nga ko ci boo muytu takkal nga koy téere ñaan lu nga yóbbu nga ko muy ñakku ji pexe mu ne def nga ko am kuñ sàggane lool waaye borom bi subhaanahu wa taala lool la namm lim nammu noppi na kenn mënu ci dara lool day am loolu ngëm-ngëm la boo xam ne ak niveau boo xamante ne kenn ku ne daa war di suuxat boppam ak di góor góorgóorlu jëm ca moom bokkaale moomu dafa am ay façons yu bari bu dee bokkaale gu mag gi mooy yi ma doon wax bu dee bokkaale gu ndaw gi nag mooy xeetu ngistal yeeg xeetu déggtal yeeg xeetu def te yàlla taxut waaw xeetu def te yàlla taxut yi yu bari yooyu nga xam ni nit ki day jëf waaye ngir nit ñee tax nit ki day jëf ndax yu baree baree tax yooyu ay bàkkaar la yoo xam bàkkaar yu mag la waaye mënees na koo tuub nit ki na gaaw tuub ko nañ gaaw tuub ko nañ gaaw góor góorlu ci waaw mel ni kuy wax innakum tusrikuuna taquluuna ma sha allah wa sita maanaam di wax bu neexee yàlla ak diw bu neexee yàlla ak nàngam yu demee noonu képp koo xam ne daal gëm na yàlla gëm na dana dajeeg moom alxuraan daa wax ne nay jëf-jëf ju baax te bañ a bokkaale yàlla dara nay jëf-jëf ju baax te bañ a bokkaale yàlla dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne li ma ragal ci yéen mooy bokkaale gu ndaw ñu ne ko bokkaale gu ndaw mooy gan mu ne mooy ngistal ngistal yonent bi nee na suñu borom ëllëg yowmal xiyaam day wax way jëf ña te ñu doon gistal ne leen dem leen ca ña taxoon ngeen di jëf ba xam dem leen ñu fay leen waaw dem leen ñu fay leen wala ñu ne leen ishabu ila alladina kuntum turauna fi dunya fansuru hal tajiduna indahum jazaa dem leen ci ña nga xam ne ñoom ngeen doon jëf ci àdduna di leen ko won ngeen xool ba xam da ngeen fa fekku fayam déet yal nañu yàlla musal ci ngistal yal nañu yàlla musal ci bokkaale nga xam ne dañuy jël borom bi subhaanahu wa wéetal ko muy kenn ñu ànd góor góor lu ci fagaru wolof yi nee nañ moo gën faju nee nañ tawat ji nga xam ne mooy jàngoroy korona ci nit lay nekk mu wàllu ko nit kon jaxasoo gu bari gi nañ ko wàññi dëgg-dëgg bis bu set bu ñu demee ba tàkkusaan bu ministre bi génnee wax ñu ne kaay yi yokk na léegi nañ taxaw nag ñun ñëpp ñu ne kaay yi du yokkoo ci man luy tax nga ne danaa raxas samay loxo ba mu set bépp ndaje mbooloo danaa ko moytandiku danaa góor góorlu tey ñaan sama borom danaa góorgóorlu danaa góorgóorlu danaa góorgóorlu engagement yooyu engagement la yoo xam ne kenn du ko jëlaaleel kenn waaye kenn ku nekk yaa koy jëlal sa bopp yal nañu yàlla boole nangul yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole suturaal moom mi nga xam ne mooy wàccee jàngoro te jàngoro ñu wàccee wàcceel na ko saafara yal nañu saafaraal jàngoro ji nga xam ne lëmbaaje na àdduna bu ko neexee rek bu subaa ak jàmm mu mel ne lu fi jaaroon ba jàll yal na ko soobee noonu mu defe ko noonu ñu delluwaat ci jàmm